رسولنا أحمد المختار خدمه باق قديم ودا فمري هدايا سيدا بدا حسنا فلا فلا

bis bi nag bisub sant Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké la ñu jotoon ci ndigal ci Serigne Saliou Mbacké itam euh, mu tuddoo ñu daayiratu Nuuru Daarayni ngir ñu ànd ci ñun ñi nga xam ne ñooy kuréel bi nga xam ne ñoo jiite xaside yi di ci liggéeyal Serigne Touba Xaadim Rasul euh, bis bi nag euh, dara sa bopp sant yëg gi ni sëñ Touba boo lañ ci boppam rek moo tax ñu di ko sant boo ba tey jii nag ak yokkute lañ ci jëlee waaye gis ñu mukk ak deltu ginnaaw ci suñu ginnaaw. Euh, di nuyu bu baax nag euh, sunu jur yi nga xam ni moom ñu la yàlla booleel muy Serigne Mor Ngar noo koy siyaare bu baax a baax a baax te di ko ñaanal yàlla sunu borom bàyyi ko fi te wéral ko euh, di nuyu baax it kilifa yi nga xam ni ñëw nañ fi Serigne Khadim Mbacke moom Serigne Bassirou Mor léegi la fi jóge di sunu xalifa noo ngi koy siyaare mboolem njabootu Serigne Bassirou Mor gi yëpp. waaw sabab bi nag mooy sunu way jur ci boppam dafa wax ni nañ koy def ba bëccëg ndax gis na ni bëccëg gi mooy gën a yaatu. xëy na la tax mu wax ko xëy na moom moo ko xam waaye ñun bëgg-bëggam rek muy suñu bëgg-bëgg lu mu bëgg rek ñun loolu lañ bëgg ndax déy nañ ci bis bi loo xam ne ni ñimee nañ ci bu baax a baax moo tax lu mu ñu jox rek àla ko leen dañuy def loolu ndax bisu sant sëñ Saliou moom ku di jullit war na la ndax ñi nga xam ne ñoo maasee ak jamono sëñ Saliou kenn ku nekk sëñ Saliou defal na la loo xam ne war naa tax nga sant ko kon sant sëñ Saliou ñëpp la war sëñ Saliou mii nag day nit koo xam ne nii yàllaa ko binde bëgg xasida yi sëñ Tuubaa rek moo ko ñor xasida yi rek ko ñoro ak bëgg mag lu lu lu ko yàlla xëy ci bëgg mag ñi ak bëgg xasida yi moo ko ñor kon nag noo ngi ñaan yàlla na ko sëñ Tuubaa defal jàmm ak gër barke sëñ Tuubaa keer na jërëjëf baax a baax man la Mama Ndiaye dëkk Touba garage Darou Moussi waaw Saliou Nguerane di suñu wëlëre di suñu xarit ñu jàpp ko nag ngir xasida yi donc nag waaw ndax ñu yaakaar naa ku ñu xam-xam ñu sëñ Tuubaa rek lañ bëgg te képp koo xam da ci yëngoot ba nga yëngu ci xasida si ñëw ànd seeg yow waaw nekk sa ginnaaw waaw Saliou Nguer nag am na ay kaddu yi cant ak kaddu ngërëm yoo xam ne dinaa ko dinaa ko séddeel ndax yaakaar naa ci lépp loo xam ne lu lu lu lu mosuma ko gis ci lenn loo xam ne lu neexul lu neexul bi la mosuma ko cee fekk mosuma ko cee dégg waaw te yaakaar naa sax lu am lu bëree loo xam moo ma ciy tàggat waaw ndax su ma fekkee ma nekk ci loo xam ne lu jaaduwul la day ñëw ne ma léegi-léegi waroo cee nekk ci li nga war a nekk ci loo xam ne moo neex sëriñ bi kon nag ñi si am ci ak cant gu wér a wér a wér waaw suñu xool na ci ñun waa Gazar gu ñëpp kontaan nañ ci ci moom lool waaw te am naa maa ngi jégalu ma ci kàddu yi ndax damaa xaw a xeebu lool ci waxat sax ci turu Gazar Moussi waaye nag ndigal daal moo for waaw en tout cas Saliou Gueye daal amuñu fayam waaw suñu xool seet na ci moom lool. Euh, sëñ Saliou ak mbaaxam moo tax mu woo ci mboolem jànkat yi nga xam ni ay rakam lañ ak ñi nga xam ñoo ko féete mag waaye mu gën cee cërale ñi nga xam ñoo doon ay rakkam. loolu nag ak mbaaxam la ñu ngi koy ñaanal ci kàttanug sëñ Tuubaa lépp lu mu ci yéene rek suñu borom defal ko ci lu kaw ak njortam sëñ Gora yow it ñu ngi lay siyaare bu baax suñu xarit nga suñu lépp nga ñu ngi lay ñaanal liggéey bi nga nekk suñu borom defal ci tawféex bu baax a baax ci kàttanug sëñ Tuubaa ñu ngi sant daal bu baax a baax ndax am nañ kontaante lool. sunu maam yaay joorloo mu ñëw fa yéene seet Serigne Sall Nguer si bis bi sama maam lan nga yan kàddu ngay sànni bisimilah. salaamaaleykum yéen bokk jullit yi yéen mbokk yi fi tase ñu ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant te di leen xamal ne bis bi bis la boo xam ne bi nun ñëpp noo ko bokk ndax noo bokk Serigne Touba di leen xamalit ne kii nga xam ne mooy def bis bi ah li xam ci moom mooy bëgg Serigne Touba toogal ko nekkal ko te di ko def ak i bokkam ñoom ñëpp ñu ngi sant it ay yaari waajuram ndaxte lu baax rek lañu xam ci lañ ne ban dëkkee ba fii ne it xawma ci ñoom lenn lu dul lu baax bëgg sëriñ Touba daal laa gis ñu di ci daw suba di ci daw ngoon a ah, moom laa gis ñu di ko def gisuma leneen ñu di ko def lu baax rek laa fi xam ci ñoom xawma ci ñoom leneen ñu ngi leen di sant di leen ñaanal di leen gërëm di ñaani taxawaay bi yàlla na yàgg at mu ne yàlla na dàq man jëm min jëm yàlla na ko dàq ci barke sëñ Touba jërëjëf. ñu ngi nii toog ak waajuru Serigne Sall Nguer muy Baye Mor Nguer tey jii itam ñu amoon kàddu yoo xam ne da ko war a yëkkati si Serigne Saliou ah comme mooy waajuram ta moo ko yar ba mu toll ni mu toll kon yaakaar naa am na ay kàddu yoo xamante ni dana ko mën a sànni si jëmmay Saliou Nguer gi bàyyi moor bisimilah. bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siraatal mustaqiim siraatal lazina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wa lad-daalliin maa leen nuyu lu bari te leen mbir mi ah màggal gii nga xam ne sool yi mi ko def mi ko day def léegi war ma mat ay juróomi yaari at sant na ko ci baax a baax sama xol ak seen ma ci dab rek sama sant naa ko ci baax a baax maa ko ñaan fan wu gudd ak wér gi yaram doom la joxoon topp la ci man du wenante man lu ma neex lay def ah kon nag loolu rek naa ci am lu ma leen di wax maa ngi ko ñaan fan wu gudd nañu ko baax moom laa bëgg bëgg Sëñ Tuubaa. tey ñi ngi toog fii ak ki nga xam mooy Ndiaye Saliou Nguer. di sëñ Alaaji Ndiaye feggoog sëñ Cheikh Ndiaye di ndijaay Saliou Ndiaye Saliou Nger ak sëñ mbay Ndiaye ak baayam sëñ Ibrahima Nger kon sëñ Alaaji bisimilah ñu jox la saan daanaka ci loolu rek sant Cheikh Saliou Mbacke ku tedd ka moo ñi fi teewee itam di ay ndijaayam sëñ Cheikh ak sëñ Ibrahima Nger baayam sëñ di eh, sant ak ngërëm. te Saal nekk na jëmm joo xamante ne bii ci lim tarbiwoo lu am solo la ci jàng alxuraan ak xasaayit yàlla def ba mu dem ba def ko liggéey muy métier boppam moo xamante ne bii sikkurulaay ci lay dox xasaayit ba bari na diiwaan yu bare bëri yi muy teew di fa màggal guddik rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muy métier moo xam ne bii lu am solo la sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne xayrukum man taallama walla moo allamahu ku gën ci yéen mooy ki jàng alquran te di ko jàngale daanaka ci ma boobu lay dox kon yal na ko fi yàlla sun borom saxal te yaatal ab liggéeyam ba li lépp ci yoonu lislaam bi itam sun boroom àggale ko xanaa di sant suñ saal rek di ko ñaanal sun borom bi yokk ko ci barke maamam noo ko ñaanal daal yal ko yàlla sàmm lafal ko cat suñu borom yiir ko mbaraanam suturaam mi loolu daal dañ koy ñaanal ñaan yàlla yokk a jàppale ak ñi ma àndal ñëpp nag yéen ñëpp dana ko yàlla sàmm sàmm ak njabootam sàmm ay waajuram jërë ngeen jëf yéen. maa ngi leen di siyaar yi ñaanal sa yu ñëpp di ni baal àq di leen baal àq dafa dama salaam saa yu mii doom bëgg na ma lool wet gu ne lu baax si man xam na ko lu ban si xam na ko te def si man a ko wax wax ak lu mu am ci lu baax mën na ko yéene lu mu yor na ko yéene defe moom rek man maay nit bëggul dara lu ma naqari bëggul kenn ku ma mer loolu lu ma naqari rek naqari na ko bu sañoon du ma am dara lu ma naqari fu mu toll rek mu ngi daw saa bànneex bu dégg bëccëg kon nag maa ngi koy yàlla fu mu la bëgg yal na ko yàlla Sëñ Tuubaa Mbàkke defal fu mu bëgg a ko yàlla yoon tamit Sëñ Tuubaa yeggale xasaa yi ji muy jàng maa koy ñaan fu mu ci bëgg a na ko fu sambam yàlla yeggale defal ko xéwal nga ma ko gudd fan ko ànd ak wér a wér la sant naa ko gërëm naa ko mbokk baay moor mii te xale yi nag moom yëg nañu maay seen bàjjan fi ñu teg seen baay rek fi la ñu ma teg te Saal nag moom ànd boog seek raam ñu raw Saal du jóg sama kër guddi du fa jóg bëccëg te lépp bëgg ma rek ni ma bëggee ni la bëggee samay doom kon nag maa ngi leen di ñaanal sunu borom yàlla defal leen ay xéewal ak i ngëneen ci kattanu sëñ Fallu yàlla na ko barkeeb turandoom topp ba li jàng mu dem ba mu sut rek njortu mu raw njortam ci kattanu sëñ Fallou ñëpp nag laa sant nag ndax ñëpp ma bëgg man xale yi ñëpp ma bëgg maay seen bàjjan waaye man ñëpp ma bëgg man seeni soxna sax bàjjan lañ may wax man ñëpp bàjjan rek waaye nag ànd ba sekk ak jubari caa am ndax Sidi Bara sama caat mu góor mais moom la saal taq moom la saal taq lool bëgg Sidi lool moo tax mu gën maa bëgg lool nag te maa nga yaakaar ne ku man ku ma bëgg rek boo bëggee ku ma bëgg rek yaay bëgg sa say doom ku bëgg sa doom moo bëgg kon nag maa ngi leen di sant xale yi nag moom amul moom kenn rek moom daal xanaa Sall daal laa raw moom dem ak dikk waaye xale yi moom ak seen i soxna ñëpp laa sant ndax soxna yi sax moom bàjjan rek la ñuy wax par ñëpp bàjjan kon maa ngi leen di sant ñu dund ak jàmm ba gën a sut maay moor aw fan dese barke ba ci kattanu sëñ Fallu lépp lu seen bàyyi liggéeyal sëñ bas Mor yal nañ ci am seen wàll. tey am kontaan bu baax a baax rek ci bisu tey bii ñu bokk teew fi ñëpp rek tey ñaan yàlla nañ ci daje ngërëm Sëriñ Tuubaa paa li na mën a wax nag ci Saliou moom mooy sunu rakk la waaye wax dëgg yàlla a ah, am na ci moom yaakaar baax a baax a baax tey rakk ju neex a boot la ndax lii muy woote tey jii yi bu fekkoon ni dégg nañ ko ci muy def leneen lu dul lii booba dañuy am lépp lu nuy naqari duñ ci mën dara waaye ginnaaw nag bi ko yàlla xiiree ci lu baax muy xasida Sëriñ Tuubaa yi mu di ci yëngu di ci woo mbokk tali mbokk jul yëpp ak i rakkam yëpp yëpp di ci yëngu kon dañ ciy kontaan bu baax a baax a baax a baax ñaan saa bi daal yàggal ñu fi te yàggal ñu fi ñu bi ñu yàgg ko fekk di yàgg ko def ndaje ca ngërëma Sëriñ Tuubaa li